Euh, avant tout damay rappeler que ni Kaolack euh, c'est une ville qui est cœur du Sénégal n'est-ce pas euh, c'est-à-dire également c'est une ville euh, qui est au du Sénégal qui mérite vraiment d'être euh, c'est-à-dire au cœur euh, des cités d'émergence mais malheureusement Kaolack a raté sa vocation parce que tey ñun en 2022 on avait eu confiance au maire Serigne Mboup pour nome ko maire de Kaolack léegi nag ñëpp amoon espoir ci moom ñëpp amoon yaakaar ci moom mais malheureusement loolu antuwul ndax tey la population Kaolack gën a sonn tey la wàllu gën a wullee ñaay nest pas ndax ñun avant tout Serigne Mboup boo gisee ñu fal ko dañoo amati moom yaakaar. Mhm. et aussi dañoo foogandi bu ñu ko falee Kaolack dina mën a jëm mais Kaolack tey boo seetloo tey doxatul sax comme nu mu meloon autant de Mariama Sarr sax xam nga jot na def dara mais malheureusement Serigne Mboup n'a rien fait xam nga sax autant Mariama Sarr li ko sànni xel di ko naan def fi lu dul ay doo daan n'est-ce pas. mais mhm. Serigne Mboup euh, lu mu def Kaolack lenn la. mooy que déjà euh, barrière yu ñu def buntu mairie Kaolack barrière yooyu qu'est-ce dafa def également les papiers parce que vous savez auparavant quand vous voulez un papier euh, au niveau de la mairie de Kaolack da nga ñëw 10 heures ñu demal ba 11 heures demal ba 12 heures di la dawloo n'est-ce pas maintenant léegi da ko def de telle sorte que da nga ñëw léegi ñu jox la ko léegi xam loolu tamit ponk bu rafet la euh, bu mu def et loolu même je pense que voilà il a imité du principe d'adaptation qui fait partie parmi les principes fondamentaux du service public voilà kon sëriñ bu def fa dara. def fa dara franchement usine bi mu bi mu bi mu lancé waat tout récemment ñu ñu lii ko c' est ça va euh, ça va créer des emplois. effectivement lu bul ko jël aussi nga nga toog si. Mm-hmm. effectivement ah loolu selon moom la te man jàpp naa ni déjà avant tout damay souligner que sëriñ moom il est devenu maire de Kaolack à cause de ses propres intérêts intérêt moo tax mu nekk ko. déjà tey Kaolack tey. principal activité assemblée la non man je suis pas. ok xam nga Kaolack tey principal activité bi xam nga lal la. dawal jakarta boo yëpp dawal jakarta la ñuy def man quand j'étais en classe de troisième quatrième sama xarit yu bëri ñu um bokkoon classe léegi léegi ñoom dañuy dawal jakarta loolu kese mooy seen activité franchement. te te déjà Kaolack tey xam nga am nga Lindiane Lindiane mu ngi fa. Lindiane te bu nga ko defaroon tey gerte gi bu ñu ko defaroon gerte gi mën ci am diwlin am ci chocolat am ci tige dege. am ci ràkkal n'est-ce pas te loolu ça va absorber euh, c'est-à-dire euh, euh, la jeunesse kaolackoise pour que ñu mooy liggéey te ñu voilà lu ñu doon xaar mu jàpp ci en même temps am appui de l'État mais malheureusement malheureusement te Serigne bu moom boo gisee mu doxalee sax. moom